مريت ببل الله ما كان bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mbokki ànd ñu ngi leen di nuyu bu baax ci Mafatihul Bichri euh, TV ñi ngi fii ci euh, Canada ci euh, gox bu ñuy wooye Montréal Montréal nag bu ñu fi ñëwee dafa am euh, édition bu am solo bu nga xamante ni moo ñu fi euh, indi mooy euh, Bamba Day bi nga xamante ni tey jii lañu koy demare fii ci kanada ni ki noonu itam ñu ngi waaja yeneen i yi moo xam New York moo xam aussi Atlanta ak yeneen états yi nga xamante ni ci la ñu dëgmal lépp. seen télévision ma Fatima Bichri TV daay déployer moyen yëpp euh, euh, ngir agsi fii ci kanada euh, ngir wan leen li nga xamante ni moom moo di Bamba Day bi fii naka lay demee départ nañ nag fi nga xamante ni foofu la ñu joxe woon nag ñun adresse bi ci kanam tuuti Serigne Mame Mbacke dinañu dab ci yoon bi niki noonu itam daañu am ci nga xamante ni fa lañ jëm fu defee fa li nga xamante ni moom moo di conférence bi waxtaanee fa lépp rek lépp aju ci Cheikh Ahmadou Bamba ak nu mel kon tey yaakaar naa dara du leen ump ak seen télévision Mafatihul Bichri tey ma ànd ci ak euh, Cheikhul Khadim Diouf moom moo yore wàllu euh, caméra bi nii gërëm mu baax a baax suñu directeur général di Madiama euh, mi nga xamante ni moom moo yabal équipe bu am amam solo lépp rek ngir wan leen li nga xamante ni moom mooy liggéeyu Serigne Touba bi nga xamante ni moom mooy am fii ci Canada maa ngi fii ak benn jëwriñ yaakaar naa moom sax ku ko gis xam ne Baye Fall Pire la asalaamaaleykum. sëñ bi Abacar Ndiaye kër sëñ Babacar Ndiaye Kër Xaadim ñu ngi lay nuyu. Aliou sëñ Amsatou Mbacké di sët sëñ Mor Penda Diop ma woon ci Cheikh Ibrahima Fall ci Jazaw Sakour di màggal bis bi ànd ak sëñ Badara Diop ñu bokk taxaw ak daayira bi yëpp ngir jëmmal sëñ Touba te xam ne moom moo attan na ko te na ko sëñ Babacar a ngi nii taxaw moom tamit wasaalika ñun ñëpp dégg nga ak xale yi kenn bànkiwul mi ngi mel ni feet tey tabaskiwaat la judduwaat la si ñun te loolu nag ndamal sëñ Touba ndamal murid yi ndamal taalibe yëpp la. yàlla na ko sëñ Tuubaa barkeel te sàkkal ko yàggal sëñ te maam Mor suñu kanam lu yàgg yàgg yàgg barke sëñ Tuubaa. sëñ bi tamit yan kàddu nga ciy mën a teg rek. ah li sëñ Babacar wax du ma ci dolli dara. Mhm. waaw sant bu baax jërë ngeen jëf. macha allah ah, ah, ah, ni ñu ni ñu waajaloo bis bi yëpp suñ borom subhaanahu wa taala yombal na la lépp ba mel ne lépp yemb na. tubaarkàlla tubaarkàlla. Mhm. Euh, waaw xanaa dañu tàmbalee sant rek. sunu borom. jullu ci yonent bi sant euh, Cheikhul Khadim Euh, ni nga ko waxee rek noonu la demee euh, sëñ bi moom egsi na biig ci jàmm ak salaam maa nga ca dalukaay ba. ba gis nga ko léegi nii programme nii lay demee marche bi la def bu nu paree marche bi nag euh, continuer programme bi na ko rek. Mhm. waaw waaw incha allah. maanaam bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu noppee fii. Euh, yaa ngi wax ne ci kanam tuuti sëñ bi danañu dab ci yoon bi. ci ci ci ci ci bëccëg gi ba ci guddi gi lan mooy doon programme bi. waaw léegi fi mu ne nii bu ñu demee ci salle bi. Mhm. Euh, incha allah ci programme bi dañuy dana am récitalu xale yi jànge ci daara ji. Mhm. waaw léegi dañ fa def récitalu alxuraan ak seen jàng daal ñuy jàng ci daara ji. daan ko Euh, bu noppee nag xam naa gars yi dinañ barkelu danañ alxuraan sax tijji nañ ko depuis suba gars yi a ngi ci mais bu ko defee dañ koy jeexal rek après euh, jàng xatmu bi bu ko defee gars yi barkeelu tuuti ci xasida ñu jàng ñu julli tisbaar bu ñu julee tisbaar rek dafa am ay intervention yu ciy topp la yoo xam ne ay communauté yu bari yu nekk fii ci Montréal lañ ci boole euh, thème bi ren ñu jëloon religion et société donc ku ci ne dana am dix à quinze minutes bu mu ci intervenir donc c'est de vue d'horizon donc même de ay chrétiens sax danañ ci wax. waaw léegi nag bu sottee nag bu bu jeexee nag ñu defal cérémonie officielle bi. Mhm. ci la ambassade beeg euh, kii mairie bi yebal ak. Mhm. ak sëñ bi yow yëpp di jël kàddu. Mhm. après nag programme bi fa lay fa lay fa lay jeexee daal bu soobee mu mel ne euh, bu ñu jógee fii itam euh, journée culturelle yi dafay wëy ndax ñi ngi war a dem New York war nañoo dem fu mel ne Atlanta ak nu ñu mel maanaam bi suy mel nii yan jeexital la lay def ci taalibe yi. ah xam nga xam nga déjà euh, Amérique du Nord gi dafa yaatu. te yàlla xam na ne nii balaa ñooy waajal bés yi danañu def ay conférence kóol ki waxtaan yu dul jeex. Mhm. yoo xam ne lépp pour ñoŋal affaire bi ñëpp organisation bi yebandi mhm. ba du am benn benn rëcc mhm. euh, te xam nga fii dëkk yi euh, gis nga ko dafa nekk dëkk yu xaw a yéeme daal. waaw te ñu nekk fi am minorité nag. waaw te wax dëgg yàlla xam nga turu l'islam euh, dañ ko dafa am ñu ko gàkkal mhm. euh, ñi comprendrewul mhm. euh, dañu koy dafa am ay xew-xew yoo xam dañ koy mbubboo l'islam mhm. te wax dëgg l'islam du loolu daal moo tax nag ñu doon woon bu yii ñuy jëmal nii nga xam ne sëñ moo ko woote ñuy wone l'islam dëgg mu li mu nekk ak li ci Cheikhul Khadim liggéey ak li mu ci woote Euh, moo tax mu am solo ci dëkk yi. Mhm. waaw waaw ndax dana dindi tuuma yu bari. waaw mhm. waaw. Ah, ah ma ngoog kooku mooy euh, Serigne Babacar Lo yaakaar naa ne moom tam jëwriñ la euh, ci liggéeyu Serigne Touba Babacar Diouf moom nga xamante ni moom moo jiite liggéey bi fii gis ngeen lépp rek am na ci ni ñu ko bëggee woon gis ngeen policiers yi noonu si kanam lépp rek di ñu wan liggéey bi mais gis nañ tam ndaw ñi ndax ndaw ñi tam yaakaar naa ne Serigne Touba amoon na lu waxoon ci ñoom. ndax ndaw ñi tam a moo tax boo gisee ni ko organiser ndaw yi ñëw ndaw yi lañ jiital. ndax xam nga daw yi. bu dul dara sax li ñuy ñëw ci daayira ba di daw ak kii. waxuma la sax njàng mi. mais déjà loolu rek dana leen xamal seen milieu. xam fu nu bokk. waaw. lii aussi dana xam dana tax ñu am tuuti fierté ci li ñuy def. waaw ndax xam na ñu jaxasoo fi ak seen i mbokk seen morom yoo xam ne ci dëkk bi lañ dëkk. bon te la ñuy xalaat ak la ñuy kiyee du bokkul. donc yi dana leen aar. ci benn wàll daal. ci surtout ci ay jikko. ak sa ak njàngale mi ci daara bi di def aussi. dana dana ci am solo trois kàlla. waaw ah jërëjëf jërëjëf sëñ Babacar du ñàkk ne waxtaan wi daañu ko euh, gën a yaatal ci kanam. waaw jërëjëf sëñ Ba. ba kon la télévision islamique loolu ni ngeen ko xamee Bamba Day édition 2017 ñi ngi fii ci euh, Canada euh, fii nga xamante ni moom mooy Montréal ñi ngi jëm fi nga xamante ni foofu la ñuy jeexalee euh, marché bi waaye li ñu bëgg a mooy dem ci ginnaaw xool ñi nga xamante ni ñoom ñooy Baye Fall yi ndax yaakaar naa itam sànq ba tey ñi ngi dégg baatu laa ilaaha ku ko dégg rek sa xel lay dem ci maam Cheikh Ibrahima Fall kon dem ci ginnaaw xool ñoom tam Baye Fall yi naka la ñu nekkee foofu la ñu dem jëli leen li nga xamante ni ñoom la ñuy def foofu la yaakaar naa ne gis ngeen ko noonu faal yi di yëkkati baatu laa ilaha la ah, lii dafay ah, wane ne l'islam benn la xam nga ah, démb rek maa ngi koy wax lii nga xamante ni moom moo am senegal yaakaar na ni ko kii communauté bi moo xam bu murit bi moo xam bu tijaan bi moo xam bu laayeen bi moo xam bu ñaseen bi ni ñu koy defee ci seen ay discours di wane ne euh, l'islam benn la benn mbubb bi la ndax tam suñu borom subhaanahu wa taala ginnaaw ba mu ñu bindee ba pare li ci wax rek moom mooy jaam bu ñu xoolee suñu maam Sëriñ Tuubaa maam El Hadj Malick maam Limaamu lañ bëggoon rek moom mooy lii diina ji fës te tey itam bu ñu demee euh, ba am lu mel nii itam dañu koy sante yàlla ndax itam ñoom def nañu la ñu waroon a def ba lay war a def rek moom mooy topp euh, seen i tànk ñoom ndax bu ñu ci toppee euh, ëllëg bu soobee yàlla la ñoom lañ bëggoon danañ ko gis ci ñoom kon loolu sant yàlla la bu baax fii ci Montréal gis ngeen policiers yi noonu si kanam. maanaam di wanee ne liggéey bi dafa war a am ci jàmm ak salaam ndax yaakaar nañ ne couleuru euh, lislaam ku ko xam xam ne couleur bu weex la weex nag euh, li muy wund rek moom moo di jàmm gis ngeen photo Serigne Khadim yi nga xamante ni moom la ñuy euh, yëkkati lépp rek di màggal Cheikh Ahmadou Bamba waaye lépp rek aussi di leen wan ne lislaam jàmm la l'islam du xeex ak xuloo l'islam du ŋaayoo lislaam doxul ci loolu yëpp li dañuy wane image que ne adduna bi euh, que l'islam maanaam moom la Serigne Touba bëgg bëggoon ci la nekkoon ci la nekk ci la nekkoon ba ci ay sëtam tey ji nekk fii ñuy euh, santaat yàlla bu baax waaye itam di ñaanal Serigne Sidi Mokhtar Mbacké xalifa général des Mourides yàlla euh, guddal fanam Serigne Bass Abdou Khadir mi nga xamante ni itam moom la sëñ bi wóolu daal di koy jox li luy wàllu communication bu. Euh, mu itam macha allah tarkal la waa kër si Abdou Khadir yëpp nag itam ba ci euh, euh, kullu Baye Fall gis ngeen ñu ne fan yee passé ak li nga xamante ni lu mu mën a xew rek Baye Fall dañuy ñëw di gën di salaat seen njébbal ci sëñ bi loolu yaakaar naa ne dafa am solo. télévision Bichri TV euh, mi ngi fii ci kanada ngir couvrir leen li nga xamante ni moom moo di Bamba Day édition 2017 euh, ñi ngi fii euh, ci kanada yaakaar naa ne itam taalibe yëpp ñoom tam génn nañ massivement di ànd ak ñun. ci li nga xamante mooy bés bi euh, sëñ bi ñu ngi lay ziar. waaw maa ngi delloo ziare. Mhm. ñu ngi fii ci Montréal yaakaar naa ne bamb Day bi édition 2017 bi lépp jaar na yoon. waaw waaw allah lépp jaar na yoon euh, mbooloo mi woote nañ ñëw nañu. Mhm. Euh, ñu ngi sant yàlla bu baax di ko def ay ati at. Mhm. donc vraiment kontaan nañ trop ci initiative bi ñu jël. ñëpp teew nañ waa alhamdulilah sant yàlla bu baax lépp daal jaar na yoon. waaw jërëjëf bi ñu ngi maa ngi delloo ziar bu baax. ñi ngi Montréal euh, Bamba Day édition 2017. waaw lañ koy rafetlu bu baax. di ci sant suñu borom bi di ci sant Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasul mm-hmm. moom mi tax ñu am bés bi mm-hmm. moom mi ñu texeel. moom mi tax ba lépp lu ñu yaakaar ñu ko koy ñaan mu ñu koy defal bés bu nekk. jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul. jërëjëf jërëjëf loolu yaakaar naa ne euh, lu amam solo ñu daal di euh, seetaat beneen jëriñ ku baax ñu ngi lay ziar. waaleykum salaam sëñ bi ñoo ngi leen char a baax baax. Euh, tey ñu nekk ji màggal Bamba dey fii ci kanadaa mu mel ne murid yi bàyyeekoo nañ fépp ci gox bu nekk ci Canada. waaw ah, waaw jërëjëf sëriñ bi damaa def ne loolu ta ñàkk loolu mooy au moins li ñu waral sëriñ Tuubaa mhm. ndax moom li mu ñu defal lépp mhm. maanaam jugee dëkk ba dëkk dox ngir moom mhm. jar na ko ndax dëgg-dëgg ñun moom war na noo jaral suñu jëmmi bopp yi suñu ruu yi sax jaral nañu ko waxuma laak nag déplacé wu rek pour dox ngir jëmmam loolu lu mënta ñàkk la lu ta ñàkk la ñu sant baax a baax nag lan ngay wax téléspectateurs yi nga xamante jamono ji ñu ngi jàkkaarloog euh, Mafatihul Bichri TV waaw xanaa ñoom ñëpp di leen siyaar di leen siyaar di leen xamal Sénégal euh, moom euh, bu ñu nekkee fii suñu xel ak suñu xalaat yëpp a ngi Sénégal mhm. te amuñu lu dul tubaa Touba béggewuñu ku dul Serigne tubaa mhm. kon euh, maanaam ñoom buñ ñu fàtte su ñaan ñun duñ leen fàtte mukk si ñaan donc mhm. leen char bu baax a baax di sàkku si ñu ñaanal waa Canada yëpp ndax ay murit a fii te mëbëtu murit yëpp lañ am mooy liggéeyal Serigne tubaa ba xëy faatu rek kon ñoo ngi leen char bu baax a baax jërë ngeen jëf ku baax jërë ngeen jëf la télévision islamique au service de Khadim Rasoul Mafatihu Bichri TV fii ci Canada ngir ànd ak yéen ci Bamba Day édition 2017 ginnaaw noonu itam duñ fa des dañuy dem seet ñi nga xamante ñooy jigéen ñi ndax yaakaar naa ne jigéen ñi itam euh, ñu ngi ci fànn bépp euh, démb wax naa leen ko ca euh, JFK gis nañu seen taxawaay mu rafet loolu ñoom ñëpp ñëw soxna moom i seen ak ñi nga xamante ni ñoom la àndaloon loolu nekk lu rafet waaye itam jigéen ñi Canada itam macha allah itam ndax itam ñoom la ñu war a def ba léegi ñu ngi koy def kon dañu daal di rek xool kenn koo xamante ni mënees naa wax mën a waxtaan ak moom ah ñu leen di fay. ngeen ngeen ngeen sol lu weex ndax weex dafay dafay dafay dafay firi jàmm ah, ngeen ngeen di màggal Bamba Day bi tam fii. waaw waaw waaw lu weex xam nga moom lu weex day finde jàmm. ak salaam te loolu moo tax a jóg marche bi comme ça waa dëkk bi xam ne ñun lislaam yëfu diine la yëfu jàmm la loolu la ñuy yor suñuy pancarte boobu message lañ bëgg a véhiculer. Mhm. waa mhm. ci Bamba Day bi chaque année nag dañ koy def. Mhm. waaw eh, eh, eh. bi sëñ Mamour ñëwee ba léegi yéen itam desu leen ginnaaw a ngi ci euh, euh, ci ci ci ci xéewal a ngi ci taxawaay bi loolu nekk lu am solo ngeen bàyyi seen liggéey ak seen lépp ndax sëñ Touba leen ko jaral yaakaar na. waaw waaw sëñ Touba jaral nañu lu ëpp loolu ñun bu journée bi ñëwee dañ koy waajal une avant marche bi noonu dañ koy waajal mobiliser wu ñun ñëpp. liggéey ngi sëñ bi véhiculer suñu message ndax dëkk yi boo ci nekkee da ngaa war véhiculer sa message ñu xam la. waaw mm. waaw ma sëñ maam woon ñëwee tamit ni ki tey nii dañuy def marché bu ñu paree dem ci salle ba eggale fa suñuy conférence suñuy ah, suñuy kii waaw mm. baax na ko soxna si yaakaar naa ne loolu lu amam solo la dañuy dek jéem a xool ba xam mën nañu amaat ah, keneen ah, koo xamante ni aussi jigéen la soxna si ñu lay nuyu waaw maa ngi leen di fay. Uh-huh. ñu nekk ci Bamba Day édition 2017. waaw dëgg la waa gis nga ne ñu ngi nii di ko célébrer. Uh-huh. avec euh, beaucoup de plaisir quand même. Uh-huh. parce que on est sorti en famille. Euh, on est en train de célébrer ça ici au Canada. loolu nekk lu am am solo euh, bis bi ba léegi jeexagul ndax am na ay conférence yu bari yoo xamante ne war na ko amal xale yi nga ànd ak ñoom ngir yóbbu leen ci la mooy mébét bi. waa mébét bi mooy ñun de euh, xale yi euh, euh, moo en fait chaque jour dañuy ànd ak ñoom parce que tey bu bu ñu wootee tey sëñ Touba wootee dañuy ànd ak famille di leen won ne leen lii nii ñun la famille la xale yi la sëñ Touba la lépp la parce que ñun fu ñu nekk dañuy ànd ak suñuy doom dem wuy ji sëñ Touba te lépp sëñ Touba la. waaw te bu ñëwee fii ñun dañuy am plaisir pour accueillir ko franchement te dinañ ko dalal. Mm-hmm. ñoo ngi marche ñoo ngi dem te bu ñu demee salle ba aussi y aura beaucoup de choses à faire là-bas. Ah, merci beaucoup merci beaucoup Khady rafet na macha allah la télévision islamique au service de Khadim Rasoul ñi ngi ànd ak yéen ci Bichri TV fii euh, ci kanada euh, wax naa leen ne bu ñu noppee kanada itam état yëpp ñu ngi koy euh, waajal lépp rek di gërëm bu baax a baax toute l' équipe bi nga xamante ne tey ki ko dirigé moom mooy Cheikhul Khadim Diouf moom tey moom moo bàyyi ko New York ñëw fekk ñu fii ci Canada gis ngeen police lycée aussi lépp rek di xool maanaam liggéey bi euh, nu mu war a mën a amee ndax itam euh, wax naa ko sànq jigéen ñi dañoo sol ay ay couleur yu weex couleur yu weex yi di di firi jàmm oto euh, policier yi itam nekkaat yu weex loolu itam di firi waa jàmm loolu yaakaar naa ne lu amaam solo la bi ñu déparé ba léegi ñi ngi war a jëm daje ak sëñ Maam Mbacke ci kanam tuuti lay doon xale yi ngeen gis ca kanam a kanam ñoom ñoo jiitu ñi ki noonu itam jëriñ yi ñi ki noonu itam xale yu jigéen ñi ñu bàyyi leen ngeen xoolaat image yi ba ci kanam وزن إلى أني هناك نواسي الوهاب فهو النسير أميري لدى سيدي ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يبير أجاب خير الخلق وهو النذير يجيرني الكافي بي من أزل عدا ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني عبد خادم النبي وأمر البرايا للإله يسير سوري وأيامي غدا لي سوائد بكوني عبد الله وهو الشهيد ستوري في الدارين مدهي محمدا بنزم ونزل وهو النعم الستور بسوري كتاب الله وسنة التي بها أهتمي أمانا وبزور قصوري خلت والأهل عني تفرقا لمدي الذي عنه المدين خسير خراب ولا النسارى بكيدي وزنس زنان وزنان قرور لرب الجبال لا لهم تائبا لهم من الذنب والآفات وهو غفور لهم min xaybil difaati li xayri bur yàlla bismillah ñoo ngi door jaam day tàggu borom laa ilaaha illallah wa na bépp julle ca yàlla laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah ñu moom la la koy julle bur yàlla la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah war na bépp julle bur yàlla la ilaha illallah la ilaha illallah ya ñuy moom la ilaha illallah war na bépp julle bur yàlla la ilaha julli fab yàlla la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wa nabi ba julli bur yàlla la ilaha illa laahu war na bépp julli yàlla la ilaha illa laahu la ilaha illa jërëjëf la ilaha illa laahu war na bépp julli yàlla la ilaha illa laahu la ilaha illa la ilaha illa laahu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 bépp la ilaha illallah la ilaha illallah bay julle bur yàlla la ilaha illa la la ilaha illa la la ilaha illa la war na be bay julle bur yàlla la ilaha illa la la ilaha illa la la ilaha illa la war na be bay julle bur yàlla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 ilaha illallah la ilaha illallah war na bépp jël bur yàlla bamba Oh. war na bépp julli la ilaha illallah oh. war na bépp julli la ilaha illallah war na bépp julli la ilaha illallah war na bépp julli la ilaha illallah oh. war na bépp julli yàlla la ilaha illallah war na la ilaha illallah war na la ilaha illallah buur yàlla la ilaha illala julli war na julli war naa bépp julli war naa bépp julli Muhammad Rasulullah illallah war naa bépp julli war na bépp jullit rasulillah sallallahu war na bépp moom na bépp jullit maam sallallahu taala la ilaha illallah ay góor Cheikh Ibra Fall Baay Fall Cheikh Ibra Fall